Serigne Pape Khalifa Ndiaye ibn Soxna Khady Sy bint Serigne Babacar Sy mooy président national daayira Asfiyahi euh, Serigne euh, Khalifa ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci Demb ak Tay aoudu billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi iqraaran bi nicmatihi wa la ilaha illa allah ixlaasan bi diinihi wa sayiduna muhammadun rasulullahi sal allah alayhi wa sallam shahidan bi risalatihi wa abul abbaasi ahmad tijaani sharif radiyallahu anhu muctarifan bi wilaayatihi wa cheikh alxaaji malik alayhi ridal malik mutamassikan bi azyaalihi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu soxna faatu matu bintu ñu ngi lay nuyu mm. di leen ziyaara ci ajuma bu bi di am mbégte lool ci dalal bi ngeen ñu dalal tey. jërëjëf ñu ngi lay delloo nuyoo dalal ak mbégte mu rëy ni ma ko waxee ngir euh, waxtaanee euh, sa maam jooju suñu maam jooju nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk maam Maodo Malick téeméeri at ñuy fàttaliku génn ko àddunaam euh, ci ren ñu amal ay xew-xew foofa ca Tiwaawan notamment programme bi itam ñu njortu ni yaatu na lool ndax mën ngaa ñëw ak ñun ci fàttaliku gi ñeel téeméeri at yi maam Maodo gannaaw mi génne àdduna ñu naan ko centenaire bi waaye itam solo si ak. surtout programme bi ngeen ci bi ngeen ci tëgg tekk waaw alhamdulilah rabbil alamin soxna Fatoumata laaj bi nga laaj dafa am solo ndax ku ni mille neuf cent vingt deux xel yëpp dem ci le vingt sept juin mille neuf cent vingt deux bi Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu làqu wuy ji boroomam euh, mu nekkit fàttaliku boo xam ne doonul fàttaliku anniversaire déedéet ndax ñu ngi fàttaliku kàddu yu tedd yi nga xam ne moom la Cheikh Alxaaji Malick Maodo ibnu Cheikh Alxaaji Abdoul Aziz Dabakh ci turu xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour ñu koy ziyaara ziyaara mbooleem njabootu Cheikh Alxaaji Malick yëpp jaarale ko ci ñoom Serigne Babacar Abdoul Aziz ak mbooleem njaboot gi yëpp macha allah ci kàddu yu tedd yi mu yëkkati jëmale ko ci umma islam bi yëpp wane ni ñoom célébré wuñu centenaire ngir célébré làqu Cheikh Seydil Hadji Malick hmm. waaye dañ koy célébrer ngir xam ni àdduna moo toll foo xam ni téeméeri at yi dafa am importance tey ci àdduna hmm. barki demb rek ñu ngi fàttaliku téeméeri at yi boroom xam-xam bu mag bi alxaaji maxtar Mbow am àdduna yëpp doon ko fàttaliku ndax li mu liggéeyal ci àdduna liggéeyal ko xam-xam hmm. maam Cheikh alxaaji Malick tamit dafa liggéeyel umma islam bi liggéeyal àdduna liggéeyal Sénégal loo xam ne bu yàlla defee téeméeri at ci moom am mu war a nekk occasion ngir ñu mën a saytuwaat liggéeyam jëlaat gën jëlaat jàngaleem ngir mu mën a nekk benn model wala benn viatique pour ndawi Sénégal tey nga xam ni tey ku xool réew mi manque de repère mi ngi fi crise des valeurs am na kenn amatul royukaay ci wàllu modèle boo xam ne tey dinañ ko mën a am am na ñuy nettali ni dafa am bis benn mag di dox ci ndar ànd ak doomam doomam jékki-jékki posé question papam ne ko pap dama bëggoon xam lan mooy nitu yàlla hmm. ba mu ko ko laajee papa ji ndax foogul woon ni doomam ak âge bi mu am dina ko posé question boobu hmm. mu yemook benn góor gu yiw di di dox di ñëw sol jàllaa bi njool yore parasolam ba mu leen jegee mu nuyu xale bi nuyu papa ji jël bopp xale bi raay ko waxtaan ak ñoom romba leen dem papa ji ne doom ji a ah, xaw ma de lan nga may laaj waaye góor gii di dem de xam naa ni li nga may laaj ci la bokk nitu yàlla la te kooku mooy Cheikh xaaj Hadji Malick hmm. donc fàttaliku bi nag centenaire bi occasion le ni nga ko waxee hmm. ci ndigalu xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla dëgëral ko defal ko ndam boo xoolee xilaafa Serigne Babacar Mansour ci centenaire Cheikh Al Hadj dafa doon lu particulier hmm. ndax boo xoolee dafa ubbi chantier ñetti chantier yu symboliser tey centenaire Cheikh Sidi Al Hadj bi ci njëkk mooy unité famille Cheikh Al Hadj Malick keroog ba muy dem ca Maroc roi Mohammed VI invité ko dafa ne duma dem man rek njaboot gi yëpp nañ ma dajaleel ci kër gi fenn fu nekk nañ fa jël kenn ñu def délégation dem jëmmal njabootu Cheikh Al Hadj Malick mu indi notion de xilaafa ne man dama jàppee sama bopp taalibe xam ne dama ñëw pour servir njaboot gi loolu nekk nekk nag loo xamante ne benn symbole la beneen bi muy jumaa ji gis nga macha allah chantier ku dem Tiwaawan tey nga xool ci centenaire bi tey na mu jëmmalee tey liggéeyu maam Cheikh Al Hadj Malick à travers la grande mosquée de Tivaouane ñëpp béggee ko ñu koy ñaanal yàlla mottali ko ak jàmm ba mu mën koo jiite ubbil ko njaboot gi yëpp mën ci bénéficier wu waaye beneen symbole bi tamit nga xool bët ki démb la ñu recevoir les œuvres complètes de Cheikh Seydil Hadji Malick à Tivaouane muy diwaanam ak la nga xamante ne bind na ko bu ñu demee ba ci biir di nga gis jéego yi nga xam ne tey def nañ ko kon centenaire bi mhm. occasion la ngir ñu mën a revisiter waa dundam mu nekk benn yóbbal pour toute la umma pour tout le Sénégal ci li nga xam ne maam Cheikh Al Hadj liggéey na ko. ñetti fan yoo xam ne nar ngeen cee euh, fàttaliku maam euh, El Hadj Malick si ni ma ko waxee sànq ajjumay euh, tey ji ñuy enregistré waxtaan wi ba dimanche kon ci ngeen koy fas yéene amal ñu njortu ci itam programme boo xam ni ñetti fan yooyu yëpp jullit ñi ak taalibe yi ñëw ci la ñuy nekk ana naka ngeen nar fàttalikoo maam Maodo ci ñetti fan yi. waaw bi nga xam ne nag ñu ngi liggéey ci loolu. ci njiitalu Cheikh Alxaaji Malick Maodo ibnu Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Sy Dabakh teg ko ci coordination Serigne Mansour Sy ibnu Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Dabakh ànd ko ak ñoom sëñ Maam Alpha sëñ Pamata Kebe sëñ Abdoul Hamid ñu ngi am yéene aljuma bii di ñëw waaye lépp nag ci initiative ki mu ki xalifa bi teg ci loxoom muy le maire de Tivaouane Alxaaji Demba Diop Sy hmm. mu ànd ko ak les comités d'organisation ya nekk ca biir Tivaouane la ñu am yéene mooy juma bi tey at ñëpp a ngi màbb di wuti wuti li ji Tiwaawan mm-hmm. bu ñu jullee juma incha allah bu ngoone xam nga ni xadaratul juma dafa am benn symbolisme ci biir tarixa Cheikh Ahmed Tidiane ci kër Cheikh Seydil Hadji mm-hmm. donc bu yàlla dogalee nag incha allah ajjuma bi ci ngoon ndaw ñëpp danañ fa àndandoo am nga xamante ne mooy xadaratul juma bu mag a mag a mag mm-hmm. bu ko defee loolu lépp nag ci ndigalu xalifa bi bu ko defee bu yàlla dogalee tamit suba am na li nga xamante ni mooy ay conférence scientifique ci li nga xam ni mooy l'œuvre et la vie de Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu ñu ci adduna bi yëpp ñu ànd ko ak le royaume du Maroc nga xamante ne le roi Mohammed VI dina fa def délégation le chef de l'État dina ñëw ànd ak le royaume du Maroc représentant du roi du Maroc ñooy àndandoo présider atelier scientifique yi nga xamante ne dana am foofu mm-hmm. amaat exposition boo xamante ne ñu ngi sëñ Abdul Hamid mi ko jagleel li nga xam ni mooy la fi xaaj Hadji Malick bàyyi ci patrimoine culturel ak spirituel. Mm-hmm. lépp dinañ ko fekk foofu ci Tiwaawan ci ay bagage mam Cheikh Seydil Hadji Malick ak njabootam yëpp bagage yu sëñ Babacar bagage mam Abdou Aziz Dabakh mam Mansour mam Sidi Ahmed seeni jaar-jaar ak ba ci mam Habib ak ñëpp boo bu ñu demee foofu Tiwaawan dinañ ko fa fekk ci njaboot gi mm-hmm. bu ko defee ci dimanche bi amoon na benn concours de récital de Coran boo xam ne njaboot yi def nañ ko fa dinañ leen récompenser présenté waale tamit diwaanu Cheikh Sidil Hadj Malick bi nga xam ne mi ngi doog a génn ak comité scientifique bi xalifa bi installé woon njiitalu sëñ Babacar Abdoul Aziz docteur Bachir Ngom sëñ Pape Matar Kébé ñoom sëñ Babacar Mbaye Lo ak ñoom ñëpp danañu présenter œuvre yooyu bu ko defee euh, ñu am na tàkkusaan yoo xam ne tamit dana am ca stade bu wan muy ay son et lumière dimanche bi nekk bisu ziar lundi nag nga xam ne bisu ñaan la hmm. ni ko xalifa bi ñaane le vingt sept juin hmm. képp ku nekk fa nga nekk rek zawiya yi nekk Sénégal yëpp ñu àndandoo ñaanal réew mi ñaanal Sénégal xam ne loolu moo nekkoon mission maam Cheikh Al Hadj Malick ak njabootam altine boobu sax mooy symboliser bis bi mu génne woon àddina waaye ak lundi vingt sept juin boobu moo symboliser mhm. téeméeri at yi nga xam ne si la Cheikh Al Hadj Malick làqu woon mhm. le vingt sept juin mille neuf cent vingt deux mhm. téeméeri at gannaaw ba mu génnee àdduna ñu di ko fàttaliku tey ak fi jamono toll euh, Pape fa loolu lan lay tekki waaw li muy tekki euh, mooy li ñu wax sànq rek xam nga alquranul karim bu ñu delloo liggéeyu maam Cheikh Al Hadj Malick génnul ak sunna dundam yëpp daf ko jox alquran dundam yëpp daf ko jox sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mag ñi ñëwee ci Serigne Babacar radiallahu anhu ne ko si dañ lay dégg dañu bëggoon xam nag li la yàlla may lan la mu ne benn kéemtaan laa mën a def mu yéem leen mooy teg sama tànk ci alquran ak sunna bañ ko tegg maam Cheikh Alhaaji Malick dundam yëpp ak njabootam génnul alquran ak sunna moo tax boo demee ci suratu nahl aya cent yàlla dafay représenté maam ibrahima alayhi salaam mu ni inna ibrahima kaana ummatan nee na maam ibrahima au delà de dimension prophétique bi mu am au delà de euh, li mu représenté yàlla nee na ibrahima dafa nekk dafa représenter toute la umma c'est-à-dire que dafa nekk un guide te mooy la Serigne Babacar daan wax ni wolof xàmmewuñu yi mu ni wolof xàmmewuñu rey ak rendi xam nga tabaski bi mi ngi ñëw mu ni nit ñi xàmmeewuñu rey ak rendi mhm. mu ni kenn du wax damay rey sama gàtt damay rendi la ñuy wax mhm. ndax rey yàllaa ko moom mhm. mu ne nag xàmmeewuñu aji màkk ak dem màkk yaakaar naa tey le premier vol vol bi war ne nag aji màkk ak dem màkk bokkuñu am na ñoo xam ne nee na ñu màkk tourisme rek lañ ci am waaye aji màkk mooy nga dem def ponk yi na ko yàlla sante ba ñu dugg ci lenn loo xam ne sant ci wax ci ci def lu ñaaw ak ñëpp loo xam ni alquran def la ko tere nga def ko ci aj moo tax mu ne wala xamewuñu aji màkk ak dem màkk mhm. mu ne dem màkk mooy dem rek tourisme mhm. visiter lieux yi ñu bisiwaat aji màkk mhm. dem wëndeelu rek ñëwaat waaye aji màkk nag mooy nga dem def ponk yi na la ko yàlla sante boo ñëwee nga doon jullit xaqan waaye mu ne wala xamewuñu tamit miiras ak séddale tey boo xoolee léegi li xew si jamono kër yëpp ñu ngi yàqu ndax héritage yi nañ koy séddale ku nekk da ngay pàccoo la rek waaye am xàmmewutuñu miraas ni ko yàlla waxee ak séddale mooy jël la la neex waaye mu ne xàmmewuñu tamit sëriñ ak nitu yàlla kon Cheikh Alhaj dafa nekk un boo xam ni dafa ñëw ci jamono boo xam ni tamit Sénégal dafa am fu mu toll woon gis nga époque coloniale na ko mag ñi traversé fexe ba xeex ak li ñuy wax alienation culturelle moo tax bu ñu demee ba ci biir nga xool ay œuvre ak na mu doxalee stratégie bi nga xamante ni def na ko ndax bi ko yàlla may mu judd en mille huit cent cinquante cinq am na ñu wax ñi sax ñii ñii ngi naan mille huit cent cinquante quatre ñii ñu ngi naan mille huit cent cinquante six mais li ci gën a wér ci mille huit cent cinquante cinq bi nga xam ne judd na ba wattu alquranul karim à l'âge de huit ans à dix huit ans mu fexe ba initié wu ci loxo maam Alpha Hima Yoro Wele ci biir tariqa Cheikh Ahmada Tidiane mais en 1888 à l'âge de 35 ans 33 ans la commencé di wàcc li ñuy wax dem aji mag foofu tamit mu am benn euh, mu nekk loo xamante parce que mun naa wax ni tey boo doon tënk dund mam Cheikh Al Hadji Malick mhm. diggante 1888 ak 1822 ci la lancé son projet bi mu am pour umma bi yëpp xam nga notion de umma bi bi ñëwaat ci maam Ibrahima mm-hmm. boo demee même dans ses écrits mm-hmm. boo xoolee ci Taysiir ñëpp miin ko di wasilatul muna fi nazmi asmaillahi al husna mm-hmm. dafay indi notion de umma irfir li ummatihi mi ngi ñaan yàlla jéggal toute la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam warham bi ummatihi mi ngi ñaan yàlla sotti yërmande sur toute la umma du prophète Mohammed wastur laha mi ngi ñaan yàlla suturaal ummatu sayyiduna muhammad nga xoolaat ci biir mi ngi dem ba ci biir naan wa saamihan walidina wa shuyuuqa wa man mi ngi ñaanal ay wayjuram yàlla amnistie leen mm-hmm. ay sëriñam ak bépp sëriñ bu nekk ci réew mi wa man dem ba ci biir naan wa dawil islaami ak képp koo xamante ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dem bay tëjaate siir bi naan lan faxfir lana yàlla yàlla na nga ñu jéggal mhm. wali man kan min bay ni naa si suñu ay diggante mhm. nasabun dañu bokk benn askan mhm. bokk benn réew bokk benn umma min ji xatitiin wala sax koo xam ne ñoo bokk moom aadama ak awa xoolal xoolal notion boobu nga xam ne day jullit ñi te boo xoolee mooy mission say sayyiduna Muhammad yàlla bi mu koy yónni daf ko yónni wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin mhm. dama lay yónni nga nekk miséricorde pour toute l'humanité mhm. wama arsalnaaka ila kaafatan linnaas dama lay yónni nga ñëw pour tous les êtres humains mhm. kon mission Cheikh Al Hadj Malick dépassé na cadre Tiwaawan dépassé na cadre Sénégal dépassé na cadre Afrique mais dafa ubbeeku dans tout la umma di nga gis ci biir aji màkkam keroog en ba mu bàyyee ndax moom dundam boo koy tënk soxna Fatou. Mhm. daf ko tënkoon ci ñetti lettre muy ja ju ba ja bi muy lan jàng l'instruction aaya bi njëkk wàcc ci alquran mooy lan iqra nga xool kon li mu jox à la science li mu légué à la science mhm. li mu bàyyi comme œuvre monumentale bi nga mhm. dem ba ci biir yëg xool ni moom un projet de société la doon teg pour teg lan mooy le musulman parfait xam nga damay dégg benn waykat parce que euh, bu benn rappeur sénégalais muy wax naan wax ma lu bandit du nuróol lu war a doon jikkoom <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. waaye moom daf lay wax lan la jullit di nuróol mm-hmm. lan moo war doon jikko julit portrait jullit daal la lay defaral portrait rebo portrait bi la lay indil à mm. travers ses actes ak ak à travers ses œuvres nga xam ne ku ci jaar rek da la tegal un programme nga xam ne xoolal par exemple Taysiir nit ya eh, quatre-vingt-dix-neuf turu yàlla ku ko mm. mokkal sa yaram araamal safara xaddis mm-hmm. yu bëree ci ñëw mm-hmm. mu xam ni nit ñi amatuñu jot mm. di naan di di jël quatre-vingt-dix-neuf di ko mokkal mm-hmm. sama classe boo bëggee jël quatre-vingt-dix-neuf mokkal ko dafay metti par pédagogie mu def ko ay way mm. moo tax mu ne alhamdulillahi zit tay siiri nazma daraari lahu yallaahu yallaahu indi la quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yi yallaahu rahmaanu yaa rahimu yaa maaliku alquduus yaa muuminu di ko topp ba mu jeex te waye gën a jop jàpp parce que xam na ni ñu ngi ñëw ci jamono boo xam ni nit ñi way li ñuy gën a mokkal mhm. boo demee ca falaa vingt cinq euh, yonent yi yàlla tudd ci alquranul karim mhm. mu xam ni mokkal ko ku ko mokkal sa yaram araamal na safara mu jël ko def ko ay ay way bi bi bi bi bi aadama idrisin wa xuudin way wa yunusin way wa luutin di ko topp ba vingt cinq yi mat mm-hmm. nga xamante ne pédagogie la woon nga dem ci téere bu mel ni xantaratul murid nga xamante ne mooy le le le le viaduc de celui qui va à la quête de la science étudiant bi li mu le viaduc de l'étudiant mm-hmm. nga xamante ni même l'étudiant qui est à l'université Cheikh Anta Diop en quête de science tey xantaratul murid war na nekk benn tableau de boorom ngir mu xam nan la ñu war a jëmee ci sàkku sàkku hmm. xam-xam tey université Cheikh Anta Diop war nañ fa mën a jàngale téere bu mel ni xantaratul murid nga xam ne dalay wax si bay étudiant bi lan nga war a lekk hmm. ban comportement nga war a moytu yow muy wut xam-xam nan nga war a def pour aller hmm. vers la quête de la science ndax mooy li yàlla taxoon ñu bind ñu beneen xaraf bi muy ju muy julli la notion de mosquée ñëw la notion de vie sociale mu jàkk symboliser wu rek julli këpp këppal dem déedéet. Mm-hmm. mais dafa ñëw pour unité sociale jullit ñi di mën a dajaloo ci benn gox. Mm-hmm. di nga dëkk ci koñ kenn du kenn du xamanteeg sa morom. bu jàkk ji ne allahu akbar ku nekk génn sa kër. Mm-hmm. dajaloo xoolal léegi koñ boo dem payi bu ñu sëlmalee fajar ñëpp a ngi xamante. Diop Ndiaye Seck na nga def ah diw de ñëwul tey dafa. feebar di jàppalante ku feebar ñu cotiser ci biir jàkk ji dimbali ko kon notion de social living mooy ñëw ci biir jàkk ji mën a kon julli waaye dafay tax tamit nit ki leneen du ko détourné tamit ci yoonam ndax fu jàkk amul tey mm-hmm. lëndëm lëndëm am fa mm-hmm. xoolal tey Afrique dëkk yi ëpp tey taux de criminalité mooy dëkk yi gën a néew jàkk mm-hmm. tey gox bu am jàkk ne allahu akbar au moins nit ñi am na lumière boo xam ne mi ngi leen di teg ci yoonu siraatikal mustaqim beneen bi muy lan ba muy bay muy notion de travail ndax loolu la daan ñaqe moo tax bi mu bàyyee toolam mm. ca ngàmbu ci le mm-hmm. ba amoon yéene dem faas mu gis ni que récolte bi am na lu ëpp paasu faas di paasu màkk mm. mu ne kon faas nekkatul sama farata mm. kon màkk mooy sama farata maa ngi dem ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en mille huit cent quatre-vingt-huit ñii ni mille huit cent quatre-vingt-neuf mm-hmm. waaye yéenam ci màkkatal mukarrama soxna Faatu xam nga euh, lan la woon mooy dee ci soppeem ba sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadj Malick ba ba muy dem màkk dafa miraasoon boppam ba noppi. Mm-hmm. ndax yéeneem yëpp moo nekkoon dee ci soppeem ba xam nga def bëgg bi mu bëggoon yonent boo xoolee mm-hmm. moom amul bisu bisu boppam. musoo mm-hmm. dégg Sénégal ñu ni tey la ñuy amal bis jagleel ko Cheikh Seydil Hadj Malick amul. musoo dégg ñu ne gàmmu Alaaji Malick. lan la ñu guddi. yonent bi sallallahu programme yi ñuy amal ci xadara almaliki yëpp doo mës a dégg tey la xale yi di def ay tàkkusaan mhm. waaye lépp lu ñu xewal tey di guddi rek dañu naan guddi yonent bi mhm. nga gis alxaaji Ibu Saaxo ak ñeneen ak ñeneen lan lañ fay def di waxtaane jikko yonent bi parce que dafa xool penc yi mhm. boobu gàmmu yi amoon nga xamante ne ci wàllu boo demee dans la communauté lébu gàmmu ay carnaval la daf ko fi fekk mais daf ko fi fekk adapté ko ak lan indil leen ki tax yàlla bind ñu muy sayyiduna Muhammad moo tax muy wax ci biir xilaasu zahab naan wa laysa lii amalum alxaaka yaa amali siwal mahabbati wa taadimi wa salami amul benn œuvre bu ma la mën a présenter yow yàlla ëllëg lu dul cofeel gi ma am ci yonent bi màggal ko xam nga kooku kon seey na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am yéen a des fa waaye dafa aj bi dafa paase ba nit ñi ñibbi muy nekk màgg di di jaxasoog boroom xam-xam yi di dugg di gëstu di jàng di dem ci bërëbu université yi nekk diggante Makka ak Médine di jaabant ndekete am na benn góor bu koy topp hmm. gis ni naan kii de ak bi jeex na te yàgg na fi mu koy bis muy dox góor gi di ko topp bis muy dox góor gi di ko topp maam si alxaaj Malik am impression ni am na kuy dox ci ginnaawam hmm. mu jàdd benn koñ kooku topp ko mu tur ne ko waaw góor gi ah yow de yaa mooy topp de mu ne ko dama la fi gis nga yàgg fi ma gis la ni nga fonkee diine ak ni ngay joxee say farata ma te xam naa sa yéene mooy nga des fii waaye maa ngi lay yëgal ni boo fi desee ëllëg am nga mission bu lay xaar ci sa réew te benn nit nga yonent bi nee na nga jubbanti benn nit moo gën dafa mel ni da nga yee toute la umma hmm. benn nit rek nga jàngal ko ba mu tegu ci yoonu siraatikal mustaqim moo gënal yàlla àdduna ak li ci biir. Mhm. kon sa mission du toog fi ci la maam Cheikh Al Hadj daal di wax ni. kii liñ ko waxloo du waxam kàddu yonent bi la. Mhm. ci la ñibbi si nag mais avant muy ñibbi dafa def ay voyage mhm. dem na fu ci mel ni Asie centrale. dem na fu ci mel ni Albanie am na ñu mu jox tarixa bi ca Albanie. dem na dëkk bu ñuy wax Samarkand. dem na dëkk bu ñuy wax Bukhara lépp ci biir Asie centrale. dem na euh, Jérusalem dem na euh, Alexandrie loolu yëpp ci port yi nga xam ne daf ko daan permettre mu visiter waale les cultures de ces pays pour mën a nag xool lan la war a indil nag Sénégal dooga nag ñu bisi moo tax boo xoolee diggante 88 il œuvre am yu mag yi nga xam ne tey ci biir réalisation boo xoolee en 1894 ci la samp 93 ci la samp zawiye bu Ndar en 1893 à son retour de pèlerinage à la Mecque mille 1904 mu samp zawiye bu mille Tiwaawan 1905 mu samp zawiye bu Dakar juste pour wan la symbolisme centenaire bi ci ni ko maam Cheikh Al Hadji inde ñuy waxtaanee maam Maodo Malick ak euh, Serigne Pape Khalifa Ndiaye ibn euh, Soxna Khady Sy bint Serigne Babacar si moom mooy président national euh, daayira Asfiyahi li nga wax ni yëpp Pape Khalifa daanaka dugg nga ci liggéey bu am solo bi mu fi bàyyi waaye tey dundam moom en tant que El Hadji Malick Sy maam Maodo loolu ci mën a wax ñu mën ko ci jàpp ni ay jàngat waaye dundam liñ si mën a jàngat mooy Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu euh, soxna Faatumata ku ragaloon yàlla mm-hmm. ndax cheikhun taqiyun laa yuzannu bi ribatin wa wa ala istiqaamati bil ilahi al xam nga sëriñ bala ngay mën a jiite nit ñi da ragal yàlla te mooy la arabiyu bi laajoon sallallahu alayhi wa mm-hmm. ne ko dama la nga wax ma lu may jëriñ àdduna alaxira yonent bi ne ko laajal loo laaj ma tontu la mu ne ko dama bëgg nekk ki ëpp xam-xam ci nit ñi yonent bi ne ko soo bëggee nekk ëpp xam ci nit ñi na ragal yàlla ndax yàlla moo wax ni wattaqullaha ragalal yàlla wa yuallimukumullah yàlla jàngalal la boppam Cheikh Al Hadj dafa ragaloon yàlla mu ne waat ko dama bëgg nga wax ma yow ki yàlla yónni dama bëgg nekk ki ëpp alal ci nit ñëpp mu ne ko soo bëggee nekk ki ëpp alal ci nit na nga doylu boo doyloo rek yaa ëpp alal ci nit ñi tey tey li sonnal Sénégal yëpp mooy kenn doyluwul mm. tabaski baa ngi ñëw di ngay gis ñu xam ni tabaski coono ba nit ñi di daj lépp ñàkk doylu moo ñu si yóbbu moo tax coono yëpp tàmbali na nag mm-hmm. ñi fay nañu seeni téléphone portable mm-hmm. ngi daw ñi ngi di nga gis ñoo xam dinañ def sax loo xam ni farata ba ci ëpp yàlla nee na soxlawuma yàpp ba mm-hmm. soxlawuma deret ji ragal yàlla ji rek moom moom laa ci soxla ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha lu la yàlla tegul tegula ko moo tax ku Cheikh Al Hadj ku doylu la woon mm-hmm. beneen bi arabi bi laajaat sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nekk ki nga xam ni moo gën a maandu ci nit ñi mm-hmm. mu ne ko soo bëggee nekk ki gën a maandu ci àdduna bi na nga fexe ba li nga yéene sa bopp nanga nga ko yéene sa mbokku jullit mm-hmm. boo demee ci xutbaam maam maam maam maam Cheikh Alxaaji Malik mi ngi wax ni wa fil xadiisi ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tadxulul jannata xata tuminu walan tuminu xata taxaabu qaala allahu taala euh, waxtasimu bi xablillahi jamian wala wala tafarraqu ci xutba jumaa bu mu bindal boppam mm-hmm. nee na du ngeen yi yonent bee wax ni du ngeen dugg aljanna mukk fekk gëmu leen yàlla mm-hmm. waaye du ngeen gëm yàlla mukk feek la ngeen bëggal seen bopp mm. bëggal ngeen ko seen mbokk jullit maam Cheikh Al Hadj ci loolu la boole woon dundam beneen bi arabi yu laajaat sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nekk ki gën ci nit ñi mu ne ko boo bëggee nekk ki gën ci nit ñi nanga fexe ba jëriñ nit ñi xayru naasi anfaahum linnaas yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mm. mooy kiy jëriñ nit ñi maam Cheikh Al Hadj nag dafa daan jëriñ nit ñi di di jëriñ umma bi ci nga xam ne mooy nan la leen di servir yar ay njabootam. xoolal dafa toog ca njaarnde. Mm-hmm. ñu war a xëy dem ndar. moom dafa amoon programme pédagogie bu jàngalee ba geewe jot ba ñu sëlmal ne salaamaaleykum dafa naan tëj leen téere ñu tëj téere mm-hmm. xam nga xam nga lu ñuy waxtaane mm-hmm. soxna Faat actu actualité. xew-xewu jamono. xew-xewu jamono day day indi revue euh, dañ koy defal revue de presse. am na koo xam ne da daan dem jëli ji journal Paris Dakar. Mhm. kooku français la jàng bu ñëwee kooku mooy mooy mooy mooy toog mu ne ko lan moo xew ci àdduna bi lan moo xew ci réew mi ñu ne ko ah guerre mondiale bi de fi la toll ci wàllu économie de nangam xew na ci wàllu santé nangam kooku il était un homme de son temps préoccupé par son temps. Mhm. moo tax révolution bi mu def en un laps de temps ci wàllu bindam ci wàllu stratégie yi nga xam ne daf ko teg. dafa abonné woon journal bu ñu daan wax jamono boobu ci euh, le monde diplomatique boo xam ne par la poste la daan joge hmm. ngir mu xam actualité lii amoon en Europe abonne woon beneen journal boo xam ne ça venait du monde arab hmm. boo xam ne actualité Palestine actualité du monde arab yëpp Cheikh El Hadj Malick il était au courant de son temps parce que tamit dafa déggoon jamono hmm, bëggul woon jamono raw ko bëggul woon tamit jamono raw ko noonu la yaree njabootam bu lu xew ci àdduna rek da daan taxaw nekk au devant de la scène bi mu yaree mag ñi mu ne leen ah tëj leen téere yi ñu tëj ñu ngi fas yéene dem ndar ëllëg ndar nag capital la bokkut ak àll bii ngeen toog ci njaar ne dama bëgg nag bu ngeen di dem ngeen seet seen ay comportement benn bi un dama bëgg ngeen bàyyi ko xel doomu ndar buy sol mbubam mbubam di buubu te yéen ay nitu sunna ngeen fexe leen ba seen yére bu mu buubu mu ne leen ñaareel bi doomu ndar buy lekk dafay tuur yéen fexe leen ba bu ngeen di lekk bu leen tuur xoolal xoolal éducation de base boobu. Mhm. kilifa danga nga war di yar sa njaboot. moo tax modèle bi mu indi c'est extraordinaire. Mhm. mu ne leen nag waaye nag ñoom bu ngeen di lekk ak ñoom ñu tuur. Mhm. bu leen xe bu ñu leen ba ngeen di nekk di for ñoom la ñu tuur ko for. ndax góor góor góor góor du xeeb boppam. Mm-hmm. bàyyi leen ñoom ñu tuur seen i tuur yéen for leen li ngeen di foral seen bopp waaye ñoom seeni i bu leen ko for yéen. Mm-hmm. su boobaa kon da leen di xeeb. Mm-hmm. te nit du xeeb boppam. waaye bu bu leen leen troisième bi nag doomu ndar suy wax waxam dafay traîner maa ngaa ñëw maa ngaa dem kon yéen fexe leen ba seen kàddu bu mu changer nit da ngay gëm sa culture. da ngay gëm sa éducation bul nangu xoola léegi nit ñi penc mi ni ñuy waxe dañuy ay oui bonjour tu sais ça va dañuy dem ba dugg ci culture boo xam ni moomuñu ko mm-hmm. dañuy am benn complex mm-hmm. complexe d'infériorité te nit ki xoolal président de la République française ba mu demee États-Unis président Amérique moo gën a dégg anglais waaye ba président Amérique di wax daf ko tontu ci français ba nga xam ni ca lañ ko ca la juddoo yaroo fa màggee fa président ba di ñu koy lan traduire Vladimir Poutine dégg na anglais dégg na beneen langue français bu ko neexoon tey su njiitu réew di ñëw mu làkk mais langue boppam lay utiliser ñun nag dañuy toog président ñëw ñu war lakk ci suñu wolofu bopp mais dañ koy bàyyi jéggaani beneen langue il n'est pas dit beneen langue amul ouverture mais juste que ñu delluwaat ci suñu culture bopp loolu bokk na ci enseignement yi nga xam ne maam Cheikh Al Hadj Malick indi nag waaye nag enseignement bi ëpp solo mooy la citoyenneté. Mm -hmm. xam nga tey dafa am tey ñu ngi wax ci wàllu manifestation yi am ci biir réew mi mm. yëpp Cheikh Hadj Malick dafa annulé loo décret gouverneur général de la l'AOF décret décret mm. ndax boobu dafa amoon feebaru peste mm-hmm. ca Saint-Louis gouverneur demandé aux populations de Guet Ndar ñu vacciner leen sinokon dafa jëloon décret ni dafay anéantir Guet Ndar mm. maam Cheikh Al Hadj Malick yëg ko boobu boobu benn la ci beneen bi muy li indi tey Médina nga xam ne mooy Médinatul Munawara. Mm. Cheikh El xaaj Malick moo ko baptisé woon Médina mm. avec la communauté lébu. Médina mi ci Ndakaaru. Médina bii ci bii ci Ndakaaru Cheikh El moo ko baptisé woon Médinatul Munawara. Mm-hmm. Guet Ndar dafa ñëw fekk gouverneur. nekk en pleine crise ak la communauté de Guet Ndar. Mm-hmm. policiers yi génn ñu dem teg seeni seeni seeni seeni ay euh, projet pour teg toute la police jamono boobu teg militaires yi fas yéene nag attaqué Guet Ndar parce que dañoo bañ a vacciné maam maam Cheikh Hadj Malick doon jaar ci gouverneur mu ne ko dama bëggoon xam lan moo xew mu ne ko ah population bu Guet Ndar yi dañoo bañ a vacciné wu ndax ñoom de dañoo dof Cheikh xaj Malick ne ko bu ñu dama bëggoon nga annuler ndigal bi nga joxe pour armée bi jóg dem taal seeni lacrymogène ci biir population Guet mu ne ko bis boo ko deful di am na way bu ñaaw bu lay topp ba histoire dina toog di ko nettali te dinga gàkkal sa liggéey dinga gàkkal réew mi te lu yàqu ci réew mi ñun dañ see am responsabilité. Mm-hmm. mu nag dama bëgg nga nga annulé ko mu ne ko annulé wu ko parce que population dañoo dof mu ne ko bu ñu dofee yow mii dirigeant na nga nite mu ne ko dañoo réew mu ne ko bu ñu réewee yow nga yaru mu ne ko maa ngi lay jox demain matin di nga xëy fekk population Guet Ndar yëpp vacciné wu. Mhm. Cheikh El Hadj Malick en tant que citoyen jubalal boppam ci poste de santé Guet Ndar. Mhm. yëkkati yéreem ne nañ ko vacciné bañ ko vacciné mu xëy jaar ci benn mag ci Guet Ndar ne ah si Malick da nga ñëwoon fi mu ne ah man de dama doon vacciné wu sama ñaq ngi nii. ñooñu xëy rek la nouvelle s'est répandue dans toute la presqu'île de saint Hmm. alaaji Malick ñàqu na alaaji Malick ñàqu na ñàqu na ñëpp dem ñàqu ji dañoo xëy fekk rang yi toll ni comme pas possible hmm. xoolal li tubaab bi mënul régler en tant que gouverneur hmm. chef religieux moo ko toog ci benn geste bu mu def citoyen ñëpp àndandoo ci moom ci loolu dafa amoon ci njàngaleem dafa amoon benn xigma boo xam ne en tant que citoyen xamoon na rôle bi muy joué ndakaaru ba magu lebu yi ñëwee ñu nangu seen ay suuf mu naroon indi benn soulèvement loolu magu lebu yëpp xam nañ ko. Mhm. ñu nar leen a génne biir plateau ndax histoire keroog Blaise Diagne convoqué toute la communauté lébu. Mhm. jaaxle amul solution ñooñu ne tey dinañu génne seen i baaxi maam ngir fexe xeexak xeex tubaab bi ndax boobu. lébu dañu pare woon pour xeex ak tubaab mhm. affrontement nar am ci biir Dakar loo xam ne histoire mënoon na ko nettali. la xewoon caaroy 44 lu ko raw moom moo naroon a xew Dakar. Hmm. maam Seydi xaaj Malick doon jaar ci xoolal rôle boobu. di hmm. jaar ci bureau Blaise Diagne. ubbi bunt bi fekk mag ñëpp toog. Hmm. ba muy dem bay tëjaat di delluwaat Blaise jaañ ne ko yow de yàllaa la indi kaay. ko lii moo am ci problème tubaab yi dañoo bëgg a jël suufu mag ñi. mag ñi nag pare nañu pour en découdre ak ñoom bis boo ci waxul àdduna tukki. mam Cheikh Al Hadj Malick ñu exposé ko problème bi mu déglu leen mu ne leen dañoo nangu seeni suuf ñu ne waaw bu leen ci boole coow deret du fi tuuru dama bëgg ngeen fexe ba fii ñu leen jox di a Munawara mm. jël leen ko suuf yi nga xam ne tey ñoom dañ koo jël signé leen ay kéet wane ni da ngeen koo jaay mm. nangu leen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xool ëllëg mag ñëpp déglu conseil diplomatique bi mu leen jox mm. ne leen nag toxu leen ca Medina moo leen indi moo indi tey médinatul Medinatul Munawara bii loolu moo indi tey jàmm ji am ci réew mi moo tax damay wax ni avenue Seydil Hadji Malick mm. symbolisme entre le plateau la ak Médina bi nga xam ne moom moo ko tuddee mm-hmm. boo demee doomu Serigne Habib am euh, am na fa kër mm-hmm. Serigne Babacar Sy am na fa kër ca mm-hmm. rue am na kër ci quatre-vingt-dix-neuf rue Amadou Assane Ndoye Zawiya ba nekk biir Dakar maam Abdou am kër ca Pomba maam Cheikh Alhaji Mansour am kër ca Gueule Tapée face bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Djamil loolu am lu mu tekki njabootam itam ñëw samp ci ndakaaru am lu ñu fi symboliser ci liggéeyam mu def itam liggéey bu am solo Mame Maodo ci euh, wesaare l'islam ci Sénégal mais jàmmarloo ak noonu yi nga xam ne ñoo nootoon ñu naan leen colon yi mu nekkoon fi ak yeneen euh, kilifa diine ay nitu yàlla yoo xam ne itam def nañ ci liggéey bu am solo waaye moom ràññeeku na ci lool lana doonoon taxawaayu Mame Maodo ci ci jooju jamono taxawaayam mooy la mu daan wax tous ses contemporains képp ku mu bokkal jamono dafa leen daan wax ni benn nañu nit ñi nañ leen wan yàlla bañ leen a wan suñu bopp ndax buñ leen nëbbee yàlla wan leen suñu bopp dañuy dem ba ñun la ñuy jàppee yàlla hmm. te su boobaa nag àq boobu ñun ñoo koy gàddu hmm. waaye beneen bi tamit tubaab bi booy booy xeex ak moom da ngeen di utiliser stratégie bu ngeen leen soree dañu naan da ngeen di complot contre ñoom parce que boobu tubaab bi infiltré nañu kër sëriñ sëpp fu nekk yabal nañ fa ay espion mu ne leen da ngeen di fexe ba jege leen loolu moo waral zawiyeem yëpp mu samp ko ci capital bu ñu xëyee muy jàngal mag mi fenn rek la fi beddeekoo dem dem dem dem dem dem ca Njaarne parce que boobu mm. université populaire bu Njaarne la taxoon mu def ko mm. c'était pour école normale supérieure boo xam ne mm. dana former mag ñëpp mën leen a tas ci adduna bi mm-hmm. loolu moo waraloon mu dem Njaarne waaye boo xoolee fa mu samp ay zawaayaam nga dem ci diggu Ndakaaru avenue Lamine Gueye diggante palais gouverneur au cœur du marché Sandaga mu samp fa zawiya ba boo fa demee tey naasiril xaq bil xaq di fa jolli mhm. mu nekk centre de formation et de rayonnement spirituel mhm. nga dem ndar mu demaat à quelques enclaves palais gouverneur mu sampaat ko fa nga demaat Tivaouane nga xam ne moo nekkoon capitale de la l'arachide mhm. fii ci wàllu économie mu ñëw defaat fa la même chose indi ko ci stratégie boo xamante ne siyaasa da doon xeex ak aliénation culturelle te loolu boo xoolee ni mu ko maayee ak na mu ko doxalee ba zawiya yooyu yëpp sem samp ci noo xam ni tey àdduna bi yëpp ñu ngi àndandoo di jàng seen diine mhm. delluwaat ci ay enseignement am loolu bokk na ci la nga xam ne tey maam Cheikh Al Hadj Malick liggéeyal na ko réew mi waaye liggéeyal ko toute la umma islamique mhm. moo tax centenaire bi nekk occasion ñu mën ko revisiter waat mhm. xoolaat jaar-jaaram ngir mu nekk yóbbal nag pour toute la umma islamique. Mhm. alors ci jànnoo euh, moom ak euh, colon yi lan la ñu ci mën a jàpp ña nga xam ne ñooñu nootoon bëgg ñoo soppi suñuy xalaat ban taxawaay la amoon euh, ba muy jàkkaarloo ak ñoom. waaw moom taxawaay bi mu ci am bañ ko njëkkee convoqué ca Ndar tubaab bi ne ko dañoo dégg da ngay former ay nit da ngay am ay arme dalee ne man benn arme laa am mooy mooy kurus. Mhm. te kurus boobu tey la mu doon symboliser mooy la ma la wax sànq rek dafa indi stratégie mooy jàng hmm. julli bay parce que dafa ne société boo xoolee ci ñaari téere yi mu mujjee def ndax hmm. Cheikh Al ma Malick dafa nekkoon benn réformateur social dafa indi ces deux ñaari téere yi mu mujjee bind ci dundam muy ifhamul munkirul jaani bi mu def ko ci wàllu euh, sharia bi mu def ko ci wàllu tariqa hmm. ci wàllu mu indi kifayatu raabin ci wàllu tariqa mu indi ifhamul munkirul jaani ngir wàcc fi loo xam ni ëllëg adduna bi yëpp dinañ ci fexe ba eh, yam ci jàngaleem hmm. ci ni ko yàlla bëggee ak ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, jàngalee hmm. waaye ci wàllu stratégie mu xam ne symbolisme bi mooy li ñu wax sànq rek jàng julli bay dafa gis ni société kenn mënu koo defar lu dul dañoo jiital xam-xam ba noppi te mooy xeex contre l'aliénation culturelle des colons dindi complexe ci li nga xam ne mooy nit ku ñuul. Hmm. ñu gën a fonkaat seen bopp xam ni tubaab bi dafa ñëw boo tax boo demee ci ay bindam ba ci ñaanu wadifaam yëpp. mi hmm. ngi ñaan yàlla musal ko ci nasaraani. Hmm. naawuzu billahi min charril kufaari mi ngi ñaan yàlla musal ko ci yéeféeri. wa min charri nasara ak kan nasaraani. wa min wazirin ak ña nga xam ne tey dañuy toog yori gouvernement di xeex sëriñ si. di ko di boo demee ci ay ñaanam yëpp da lay indil combat bi mu doon combatre contre les colons. pour mhm. seen aliénation. Mhm. waaye xam ni it citoyen la dafa am siyaasa boo xam ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa boo demee ci bindam mi ngi ñuy wax naan. wa bi xayrihi wa bi xaylihi jalabal wara. Hmm. sallallahu alayhi wa sallam dafa utiliser jaas yi ngir mën a xëcc nit ñi dugal leen ci biir diine waaye dafa indi tamit stratégie. alxaylu mooy jaasi alxayru mooy nga fexe ba euh, ud'u ila sabili rabbika bil xikma yàlla nee na sooy woote si sa yoonu boroom yow sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. na indi la sagesse mm-hmm. indil loo xam ni tey nit ki xelam ngay jaar parce que pénc kenn mënu koo defar ak coow mm-hmm. mooy li xew tey dans les réseaux sociaux pénc kenn mënu koo la maam Abdou daan wax mi ñëpp a bokk concertation politique dafa war a am. Mhm. déggoo dafa war a am ñu xam ni Sénégal kenn moomu ko ku fi toogi dañ la ñëpp jël seen baat takk ko jox la. Mhm. ne la wóolu nañ la dañ la dénk réew mi waaye moomuloo réew mi. Mhm. loolu dirigeant bu nekk rawatina nag ñu ngi jëm ci ay élection législative gis nga tey yi xew yëpp ñoom dañu indi woon ay solution fekk penc penc mu yàqu ñu indi seen kàddu mhm. redressé ko xam ni pouvoir temporel dafa am mhm. pouvoir spirituel am te mooy la Serigne Babacar waxoon gouverneur Cornigent di recevoir ko mhm. ne ko dama recevoir kilifa yu bëri ma bëggoon am sa ay doléance ñu fajal la ko mu ne ko ñaari doléance la am ma bëggoon nga fajal ma ko mu ne ko ñu ngi lay déglu Babacar mu ne ko benn bi muy waxtu tàkkusaan mu ngi waaj a jot dama bëgg nga yeewi ma ma dem julli ji sama farata ñaareel bi mooy yéen pouvoir temporel ngeen yore ñun pouvoir spirituel mhm. jubal leen nit ñi nekk ci jàmm ñu ànd ak yéen mhm. dëngal leen ñu ñëw dal seen kaw ba ko gouverneur woowee ne ko dañoo bëggoon nga def campagne ñu jox la oto mhm. nga wër ci fépp dans dans la capitale ngir nga wax nit ñi ñu bàyyi naan sàngara sëñ Babacar da leen ne du ko def ndax sangara buy dugg ci réew mi yéenay joxe décret yi tax ñu koy siñe di ko wàcce port di ko dugal ci biir baar kon su ngeen bëggoon tey sàngara dañ si réew mi il suffit ngeen def décret mu daal di dañ. Mhm. kon man du ma jël naan maa ngi wër kon yéen a ko indi la maal yéen a fi mën a dindi sa maal. Mhm. te nag soxna Fatou maa ngi lay yëgal ni. Mhm. jeunesse sénégalaise mi ngi yàqu. te bokkoon na ci maam Cheikh Hadji Malick doon dénoncé ci ay bindam. daan na wax ni ñu ngi gis ay jullit. yuy woowee seen bopp jullit. di jaay sàngara bokkoon na ci réforme yi nga xam ne Seydi Hadji Malick daf ko daan jooy moo tax. kifaayatu raxabin réformateur dem na bay wax sëriñ buy naan sangara ñu naan meew meew meew moom lay naan <laughs> sëriñ bu am lu ëpp ñeenti soxna mm. ak yeneen yoo xam ne tey ñu ngi yàq société bi dem na bay ci biir diwaanam boo fa demee Seydi Hadj Malick mi ngi dénoncé sax lettres yi ñuy faral di jot dans les réseaux sociaux mm-hmm. ñaan sangam boo ko defee temps tey jeu de hasard yi mi ngi yàq jeunesse sénégalaise mm-hmm. sàngara bi mi ngi yàq jeunesse bi moo tax centenaire bi dafa war nekk une occasion. Mhm. ñu wane li fi Seydi El indi ci wàllu loi il a été précurseur. Mhm. des NTIC au service de l'islam. Mhm. ci euh, fatwa bu mu defoon ci wàllu yëgle weeru koor par les voies de la télégraphie te tey mooy la nouvelle technologie. ak yeneen yoo xam ne def na ko ay révolution yoo xam ni université al azhar daf ko bind courrier ni ko fatwa yi nga def dëppoo na ak jamono te ñoom nangu nañu loolu accepté nañu loolu. Mm-hmm. alors euh, sëriñ Pape Khalifa tey euh, ni ñu ko baaxoo bu ñuy waxtaanee euh, nit ñu mel nii dañuy dellusiwaat souvent ci seen ay jikko daal di koy toppalante bu ko defee mu gën a neex a jàpp xam nga sànq yaa ngi wax ni njàngalem yu ci bari daf koo tëgg ay way ndax xamoon na ni jamono ngi ñëw way xëy na mooy gën a yomb a jàpp ci ci ñu ci bari alors ci ay jikkoom noonu ko mën a tënkalee dajaleel ñu ko ba nga xam ne ndawi tey yi nga xam ne jagleeloon na leen liggéey bu am solo bàyyi woon leen xel itam ci jubbantiku gaag defaru gaag yu ca aju danañu ci mën a jariñoo à euh, l'occasion surtout centenaire bi nga xam ne ñoo ngi ci jamono yi. waaw soxna Fatou li ñu mën a jàngat nag ci ay jikkoom bokkoon na ci wax naa la bi ci njëkk mooy bëgg bi mu bëggoon xam-xam. Mm-hmm. dafa daan wax ni ala ya bani hadha zaman daawtukum li ixyaai diinin bil ulumi ajibu nee na yéen ndawi siècle bi yéen ndawi jamono yéen ndaw yi nga xam ne yéene yaakaaru Sénégal ëllëg maa ngi leen di woo ci ñu ànd dundal diine waaye nag bil ulumi na ngeen fexe ba xam-xam ngeen jiital ko ci lépp loo xam ne da ngeen koy def parce que réew kenn mënul tabax kër te mi ngi koy wax ci benn euh, conseil yu mu doon jox à la jeunesse sénégalaise mooy penc kenn mënu koo tabax ci lu dul dafa am processus hmm. da ngay jàng mooy li woykat bi di wax Souleymane fay bu nit ki di wuti am am demal nga wuti xam-xam mhm. ndax xam soog a jëf a gën a wóor mhm. pénc nag bu bu demee ba nit taxaw naan euh, toog muy dox mooy mhm. pénc mi yàqu na mooy ñu ngi pousser la jeunesse à la facilité Cheikh Hadj Malick nee na nag facilité boobu nda ko ndaw ñi bàyyi da bala ngay wuti ji métier nee na na nga jiital xam-xam dama am information formation nga teg ci xam-xam doogo nag mën a nag samp kër waaye nag malheureusement nag ñun dañuy bëgg am kat-kat bu rafet. Mm. samp kër liggéeyuñu gontuñu toog naan kafe ci bopp ko ñi bëgg defar réew mi loolu mënul defar. Mm. Sénégal rawatina nag deux mille vingt deux bii ñu nekk nga xam ni Sénégal tey bu su may tëj dinaa ko indi un mm. message boo xam ni par rapport ak loolu. Mm-hmm. ci wàllu jikko Cheikh Hadj Malick daawul woon lekk soow. daal woon naan soow daal woon lekk yàpp. buñ ko laajee lu tax mu ne parce que xamuma ndax nag bi ñu rattee soow mi wala yàpp mi. nag boobu dafa dugg ci toolu jàmbur lekk ci loo xam ne lewu ko woon hmm. mooy kon mi ngi dénk ndaw gis bu sori la loolu mooy nit ki mënoo ne yàlla allahuma nga tàllal yàlla loxo moo tax Sénégal dañuy ñaan ba dee fekk ne ay àq rek ñu topp hmm. suñu digganteeg suñu moroom waaye suñu digganteek suñu bopp suñu suñu bakkan hmm. mooy li ñuy lekk lépp dara lewu ci waaw dundee lewul moom sa ñaan gi weesuwul bërëb ba nga ne <laughs> loola yàlla ko waxal boppam sax te loolu sax la la koy symboliser mooy xoolal weeru koor mm. booy ndogu lan ngay wax allahuma laka sumtu mm-hmm. yàlla yow laa woora wa bika amantu yow la gëm mm-hmm. wa ala risqika aftartu ci wërsëg bi ma wërsëgalee ci laay ndogoo mm-hmm. bëri na woor ba weeru jot nga allahuma laka te yàlla nanguwul kii sa <laughs> parce que alal ba ngay ndogoo lewul la ngay jox sa njaboot ñu lekk ko lewul mbaa la waaw ma léegi boo kaala woon ak toog naan allahuma allahuma gis nga benn fatiha ku ko jàng te sa aajo fajowul hmm. man nga seetaat sa bopp hmm. ndax fa fatiha yàlla dafa jël mbooleem lu koy jaamu ci kaw suuf nit yeeg jinne yi hmm. malaaka yi rabu ali suuf si asamaan yi lépp la boole seen sabbal tënk ko ci benn fatiha kon boo ne boo jàngee fatiha ba wala daa ne na amin soxlawul wuti ji sëriñ sa boo setee sell ne allahuma boo naan allahuma yàlla ne la amin parce que loolu moo tax mu doon xeex ci lu lew loo xam ni tey lu ñu war a jàngat la ci ay jikko mm-hmm. beneen jikko tamit dafa daan wax ni mam Cheikh Alxaaji Mansour la ko wax ne ko Mansour nit ñi del jaamu yàlla ci ñoom mm-hmm. ñoom ñuy mooy yàlla ci yow mm-hmm. ndax boobu la taxoon mu wax ko dafa amoon benn lakk bu amoon Tiwaawan bi lakk bi amee maam Cheikh Alxaaji Malick comme li ma la wax rek actualité jot mu laajte lan moo xew ci pënt ñu ne ah am na kër gu nekk ci Tivaouane de quartier sangam. Hmm. borom dafa lakkale. bi mu paree ci sutura. Hmm. mu yeewi mag ñëpp daal di woo maam Cheikh Al Hadj Mansour. ne ko Mansour dama nga gëstul ma ban quartier la. Hmm. ban kër la ak kan moo lakkale waaye nag bu kenn xam ni maa la yónni. maam Cheikh Al woowaat beneen mag. ne ko kaay dama nga xoolal ma ban quartier la. ban kër la ak kan moo lakkale te bu kenn xam ni maa la yónni mhm. kooku dem def enquête am ñëw fekk maam Cheikh Alhaaji Mansour ne ko quartier sàngam la kër sàngam la diw la maam Mansour ne ko waa baax na kooku dem mu dem ci maam Seydi Hadj Malick ne ko quartier sàngam la kër sàngam la diw la maam Seydi Hadj Malick dajale alal bu takku woowaat maam Cheikh Alhaaji Mansour ne ko Mansour jëlal lii nga yóbbul ko kooku te bu kenn xam ni maa la yónni mu defaraat këram mhm. maam Mansour woowaat ka mu yónni woon ne kaay dama laa yónni ci sutura bu kenn xam ne man maa la yónni ndax mi ngi protéger. Mhm. papaam ci la mu la ma ko waxoon. Mhm. kooku dem yóbbul kooku loolu jox ko ko ba kooku defaraat këram ba ñu fàtte. ndekete boobu nee na maam Seydi Xaaj Mansuur bi mu koy jox xaalis bi mhm. nit ñi del jaamu yàlla ci ñoom. ñoom ñuy moy yàlla ci yow. am bis am ku doon seet si kooku mbokkam ñëw di war a ñibbiwaat Dakar war a jëri ji train muy romb ci biir biir koñ jàkk ndax boobu kër yi. sàkket la woon. Mm-hmm. na muy rombe rek kooku ne ko waaw yow fekk yemook Seydi Hadj di génn di jàpp. Mm-hmm. teg satalaam waa ji di romb ba yemook saket bi moom maam Seydi Hadj Malick ku amoon fulla la. Mm-hmm. soxna Fatou. ku gëmoon boppam la. fa muy tegee satalaam bi rek mu dégg waa ji ne waaw ne ko kooku ne ko sa mbokk mi noo def ak moom sa lakk bi ba ñaw na fa mu ne a ah. boo bu su fa ñëwee de xaw ma kan nga fa gis. maam Seydi Hadj Malick tegaat satala bi ne man Mansour. mu ne ko labbayka si mu ne ko dégg nga dégg nga dégg nga li ma la waxoon nit ñi mm. del jaamu yàlla ci ñoom ñoom ñuy mooy yàlla ci yow mooy mm. del defal nit ñi lu baax ñu lay waxal lu bon saa su ne mm-hmm. Mm-hmm. da ngay gis léegi penc mi say mbokk ya ngay defal lu baax ñoo lay njëkk jëlal jëlal jëlal lu bon mm-hmm. tabaski baa ngi ñëw soxna Faatu mm. ñi ngay jël di leen joxi basin di leen joxi di leen yónnee weccit ñooy xëy naan ah Fatou mii de nangam. ña nga dàq toroxal euh, teral ñoo lay toroxal. <laughs> ñoo lay dàq toroxal moo tax dafa daan wax jag saw da daan jékki-jékki mag ña nga xam ne moo leen takkaloon jabar. Mhm. joxi leen ay tool defal leen lu nekk. te fu ñuy taxaw di def lu bon it. Mhm. am na ñu siy jiitu ca kawam. dafa daan tax ay ku yàlla taxul woon. def mhm. ay ku yàlla taxul woon a def. ay ay ku yàlla taxul woon pour wane ni. moom euh, dimension am foo kon natt rek ci ay. jàngale moo tax loolu mu am solo la ci jamono ji ñu toll. surtout nag jamono bi ñu mm-hmm. toll. te soxna Fatou damay faral di wax ni Sénégal. Mm-hmm. dañoo amee jikko lido xam nga lido benn <laughs> benn jeu la bu ñu tudd. wallaahi ah, xam nañu lido. Uh-huh. xam nga xam nga lido boo mm-hmm. boo ko xoolee ñeenti cage la. mooy ku nekk ak sa kër. kenn ku nekk ak mm. kenn ku nekk boo xoolee lido nekkul benn jeu boo xam ne dafa yee sa xel. loterie la rek da ngay jël dee bi rek nga mhm. sànni lu mu la jox mooy moom mooy loolu amul amul xalaat amul mhm. amul leneen da ngay toog compter dem ku nekk yàkkamti nga toog sa kër yàkkamti nga njëkk génn sa morom mhm. yàkkamti nga njëkk arrivé sa morom te nag xam nga la moo gën a bon soxna faatu mooy da ngay ñëw ba dugg sa biir kër nit ñëw ba dugg bëgg duggaat sa kër lekk la <laughs> mu jaral ko mu amaat juróom benn si yamatuñu daje ci mbedd mi léegi alors que bu dee lido tubaab yi mhm. dañu protéger seen lido ba nga xam ne yow boo xasee ba génn sa kër. Mhm. kenn mënatul dugg sa biir kër. lu dul mhm. yow da ngay pare rek génn dem. malheureusement nag noonu la société sénégalaise bindoo. te nag bu ñu defaraatul jikko yi à travers suñu mag ñu baax ñi. maam Cheikh Ahmadou Bamba. maam Limaamu Laay maam Cheikh Abdallahi ñas maam Baye ñas ak mag ñi fi nekk ñëpp. tey loolu mooy dañu am ay magi leer yi nga xam ni tey mooy chance su Sénégal dans toutes ces dimensions moo xam mm-hmm. sur le plan politique mm-hmm. li Sénégal am amul ci benn réew mm-hmm. problème bu am ci àdduna bi ay sénégalais ñoo koy résoudre tey nag li ñu am nag ci mag ku mel ni maam Seydi Hadj Malick mm. occasion la ñu jàngat ci seen ay jikko xoolaat seen ay mbind ndax li mu bind ci société sénégalaise bëri na li mu fi dénoncé rawatina nag ci sëriñ si mm. comportement yi ñuy amee ci penc mi ni mu yàqu ci rôle bi sëriñ si waroon a ci mm. société bi te defuñu ko. Mm-hmm. tey sëriñ si ñoo gën a bëgg nit ñi oto bu rafet. Mm-hmm. sëriñ si ñoo gën a bëgg nit ñi jongama bu rafet. Mm-hmm. sëriñ si ñoo gën a bëgg nit ñi portable bu rafet. sëriñ si ñoo gën a bëgg nit ñi kër gu rafet. loolu nag taxul woon yàlla yónni yàlla dafa wax ni. wa maa xalaqtul jinna wal insa. illaa li yaabuduun maa yuridu minhum min riskin wa maa yuridu an yut'imun inna allah huwa razaqu zu quwwatil matin mhm. yàlla nee na dama leen a bind lu dul ngeen jaawuma soxlawu ma mhm. si yéen lekk soxlawu ma si yéen alal te léegi penc mi loolu lañ jël teg ko au de tout. te bari na moom suñu borom mbaal ma ci dogg fu mu waxee. yonent bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam bul yaakaar dara ci nit ñi sa payoor mi ngi ci man. loola itam ci la kilifa diina yépp war a dox. ak képp kuy woteel yàlla loolu mooy lay mën a defar pénc waaye tey bu dee tey pénc moo xamante ne tey jotaay yi ñu defal yàlla yëpp lekk la ñu jiital alal waxewuma ko nag pour dara dama ko jiital ci man mii sama bopp man lekk gi dafa am fu muy mujjee alal gi dafay jeex yàlla nee na ala lillahi diinul xaalis taqwaa bi la soxla gis nga tabaski lu muy rëy basin yeeg xar yeeg ganilaa yeeg soble beeg pombiteer yeeg. Mhm. hors d'œuvre yeeg lu muy neex neex yàlla nee na soxlawuma ko ragal yàlla gi la soxla. Mhm. na fexe ba acte bi na sell boo mhm. yore woon ñeenti jabarit yàlla nee na boo rendee ñeenti xar. gisuma ko soxlawuma deret ji soxlawuma yàpp ji. ragal yàlla ja ngay jëf ci def la ma la sant mu ma dàqal àdduna ak lépp loo xamante ne yaa def. kon société boobu nag la ñu fexe ba. xoolaat ndaw yi Sénégal xam ni. Mhm. Sénégal mi ngi toll foo xam ne te yàlla mi ngi may pétrole ak gaz. Mhm. te bu ñu defarul jikko yi penc mi bu ñu tabaxoon ay pont. Mm. tabax ay ay ay ay ay château te <laughs> fekk tabaxuñu ay nit yu xam seen mm. bopp. loolu moo nekkoon mission Seydi xaaj Malick mm-hmm. bu ñu tabaxee ay autoroute ay péage yu dul jeex. tabax tabax ay building ak lu mu mën te tabaxuñu ay nit yu nite. Mm. penc mi du mës a jag. du jag de. xoolal garage Colobane bañ ko defaraatee ñëpp a tàccu ne eskay. Mm-hmm. ani mu tey ñu mm-hmm. ngi saw ci mbedd yi loolu lépp jikko la. tilimaral mm-hmm. tel nañu mbedd yëpp. Mm. benn entretien amatul ci dara parce que mm. nit nit ya nga xam ne tey ñoo koy dëkke ñoo koy yàq. ñoo koy yàq. te loolu mooy mission maam Seydi Hadji Malick mhm. fexe ba xeex ak conscience u nit ki mhm. mu am éducation de base xam fu muy tànk ci mbokk boppam bañ a yàq pénc boo mhm. fekkee jardin public nga bañ fa tuur ndox bañ a sànni salte bañ a nekk loo xam ne day yàq pénc rawatina nag réseaux sociaux yi ñoom loolu yëpp dañ ko doon sa démb tey doog a ñëw moo tax centenaire occasion la pour loolu ñu mën ko révisiter waat mhm. xoolaat ko ngir mën a jàngat seen jikko defaraat suñu société mhm. loolu mooy objectifu centenaire yàlla na ci yàlla def barke ba lépp lu nu fa jàngale ñu dégg ko bu nu ko déggee itam yàlla na nu ko topp ci barke sunu mag ñu baax ñi euh, sëñ Pape Khalifa Ndiaye jërëjëf amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey euh, yow ngay euh, doom ci soxna Khady Sy bint Serigne Babacar Sy nekk itam président national bu bu daayira Asfiyahi ñu lay baax baax di leen ñaanal ndam ak barke bu yaatoo yaatu ci centenaire bi di ziyaar itam njabootu euh, maam Maodo Malick si yëpp dale ko ci seen xalifa bu tedd bi sëriñ Babacar Sy di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér si Malick jërëjëf sëriñ Pape xalifa yow moom mënuma laa fay ndax nit ku baax nga nit ku disponible nga euh, ku nu rafetlu itam sa xam-xam ak sa wax nga wax dëgg yàlla rëcc lu nu la lu nu la xamee woon di na tam nuyu sunu xarit bi nga xam ne moo waral xamante bi Abdou Khadre Gaye euh, voilà Jeylaani comme ni ngeen koy woowee moom itam muy mhm. baax jërëjëf sëriñ Pape Khalifa kon mbokk yi li doonoon seen émission démb ak tay ci réew mi FM ñu doon waxtaane Mame Maodo Malick si ak centenaire bi nga xam ni sumb nañu ko aljuma ji ba altine incha allah di ci fàttaliku euh, téeméeri at ginnaaw bi mu génnee àdduna dellusiwaat ci ay njàngaleem ak lépp loo xam ni daal liggéey na ko taxawee ko woon ci Sénégal ak li mu bëggaloon réew meek àdduna beek umma yëpp ni mu ko waxee ñu amoon mbégte lool ànd ci ak yéen di gërëm jaawu jàllu mi ne woon ci jàppandal gi gërëm itam ñëpp ñu doon déglu Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen émission bi nag mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne YouTube ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf